alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saahani liwatani bihi nafa ma anfani asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu del si waat deux mille trois cent quatre-vingt-treize ci ndimbalul borom bi génnoon nag ci expliquer mbokk mi doon sàkku e, wàllu jéggi siraat ndax lim déggal ñuy wax ni e, yenn mbokk yi wax ni e, sëriñ maam cheikh dajji na siraat kële ni cheikh ibrahim ñas jël na caabi àjjana yi xaw ma lan ko masalan ñu doon wax ci siraat raglu ga ak fekk jéggeegoo ko yow mucc goo te wala nu cee ñëwaat nag ci laaraaf nga xam ni moom bokkoo ci waa àjjana bokkoo ci waa sawara mbiram alxuraan wax na ci waaye nu tollu jamono joo xam ni jikko yi yàqu yi tax na fi ñu toll nii accident yii di faat nit ñi ñii jaar ci ndox mi di tukkite ba léegi nee naa leen am na ñoo xam ne yebbi wuñu bii rek di gis naa ci ñuy wax wax ju mel noonu ndax laa am ñu ñu ñu dëkk fii àgg ba woote léegi ki demagul moom du xool ci ñiy faatu de maanaam ñiy àgg rek téeméer yu faatoon loo loolu wa ragaloowu ko tax koo yebbi benn waayam bu nekk nekkaloon fii wala mu xam ko ak woo ko te li gën a sukkandiku ko téeméer yi dee loolu nag phénomène la bu doy waar bu doy waar du li ñuy wax naa waajur yi dañoo démissionné ci wàllu yar euh, loolu kenn mënu ko weddi te loolu du lu jaadu wala waajur yi mbir yi da leen ëpp doole waajur yu bari nag dañoo tënewul seeni doom ndax dara daal nekkul si ñoom luñ ma def ci seeni doom ñu koy seen wayefu wàllu ngëm yàlla ak wayefal lislaam jikkoy lislaam yi seen bëgg àdduna yooyu yëpp tax na ba euh, li leen war ci seen àdduna dañ ci jël responsabilité te loolu la bari ci ñun sénégalais yi ñu bari ay kilifa yoo xay duñ jël seen responsabilité dañuy bàyyi ba jaan romb muy di dóor dóor watit bi am na ci diine ji am na ci wàllu politique bi bëriwul ci de Sénégal buy jël responsabilité am ci ba ko waree jël hmm, bëriwu ci loolu nag lu doy waar la lii rek la mën a jur la mën a jur de oto yi gën a mën a gën ëpp sécurité bu ñu koy doon ci senegal jox ko sofóori Sénégal yenn yi laa wax accident yi du wàññeeku pourquoi ngay ñëw fii di dugg fii def accès de vitesse pourquoi ngay def troisième position bi ngay doubler pourquoi ngay duble ci virage bi nangam nangam nangam nangam pourquoi ngay def ci oto bi lu ëpp fuuf li nga ci war a def ah ci kaw loo xam ni oto bi léegi waru ko jël ah ak it ngay teg sa bopp loo xam ne lii àttanoo ko nga waa ji doon wax ni. dafa yóbbu ay client màggal Touba di baagante rek mais bi muy ñibbisi laal moom dongu laal moom mi ngi dawal baag mu nee na mu mu mu xam ni gént na kon nag kon nelaw na nelaw na loolu yàgg na eh, bi ko benn waay doon netti kon boo gisee am fi ay catégorie yoo xam ni seeni accident bariwul ñenn ñi seeni accident bari yenn xeetu oto yi liggéey yi bi kon bokkul bokkul ay dawalkat a ay nit yuy xalaat waaye daan yi nekk ci réewi tubaab yi boo defee loo wërta def lu tax état bi bëggal fee indi euh, permis à point xaw ma safoor si ak transporteur yi jóg lànk lu tax permis à mooy bokk na ca nangam ku ko def moom ñu marqué la point boo amee nangam point ñu nangu permis bi nangam ku ko def mooy troisième position ku ko doublé ba accident fekk la ci yow yaa tey même boo deful accident foo ko defee buñ la gisee war nañ laa arrêté sanction yu fees yooyu nga xam ni accident boo ree ñëw dina ñëw waaye nag am na yoo xam ne moom a tayef la liggéey bu ñaaw yow mii ni ci kanam oto yi ni ci biir oto yi di di di di dem da ngay gis sa force yi moom ni ñu war na bokkee ndey ak bàyyi ginnaaw ñoo bokk télé bi waaye ni ñu mel ne ni kuy daal ku man moroom morom duma rek la yenn sa fóoti loolu daal doy na war am na ñoo dañuy moytoo moytu moytu ba ba loru waaw ah lu ciy pexe lu ciy pexe moom yow booy dugg rek léemul te boo tàmbalee gis sa bi dawal dawal lu ñaaw na na client yi wax doonte yenn chauffeur yi sax day mel nañ lay ñaawal bu boobaa waaye na nga wax li nga war a wax wax kat ndax am na ay dawlin wu ñaaw woo xam ne kii moo ko tey jëkkante boo xam ne sañ bi wax dëgg yàlla jaaduwul kaw tali bi loolu fu ngeen ko teg dëgg la yow léeg-léeg benn seconde nga nga nga taxaw ko rek moom jàll doonte yow yaa ngi ci dëgg waaye boo demee moom mii dof dof lu réew lool bëgg jël sa àq boo demee rek ngeen daje ngeen taxaw fa nag perdal loo xam ne li ngeen doon yàkkamti gis nga ko benn fu ñu mën a wàññee benn ñaar rek boo ko nee tekk rek moom romb na ba dem léegi-léegi du mën a nekk ndax doo préparer ni kii moom dina la siif ba doo mën a freiner foofu léegi-léegi mu am ndax dawal du ñaaw daal moom moo am waaw mbokk yi kon la moom borom bi subhanahu wa taala wala al araafi ñooñu ñan ñooy waa al ngir tontu laaj bi boroom xam-xam yi lañuy wax ni hum xawmun istawat xasanaatuhum wa sayaatuhum fa xabasu ala al ñu ni mooy ñi nga xam ni bi ñu peesee seeni ah, yiw ak seeni ñaawteef ñoo tolloo tembe ci misaal bii nekk bërigo bii nekk barigo benn ëppul ci sa moroom ñu ñu téye leen nag ci béréb bu ñu wax la araaf mu nekk benn béréb bu yëkkatiku boo xam ne moo gën a yëkkatiku sax siraat ndax siraat euh, juróom ñaari pom yoo xam ni yii dafa wat yi yéeg euh, bu ñëw rek gën a tar sa moroom nga xam ne li ñuy laaj jaam bi ñu bari ci bu ñu koy mm, jéggi noo dafa nag ak farata yàlla yi ci àdduna waay yàlla dafa toofe dafa leen ko ak yombal jéggi gi bu boobaa alakul xaali waaw kon laaj jaam bi bu yomal xiyaamee ci ay jëfam bokk na ca eh, yow noo def ak julli mu tont noo def ak mu tontu noo defag woor mu tontu noo def aj mu tontu noo def ak al amaana bi suñu boroom wax ni noo yónni nit ci kaw suuf mu représenté fu waaye mu nekk fi ak al amaanatu muy kóolu def gënu ko dénk mu tontu noo def ak say waajur mu tontu noo def ak saw làmmeñ yaa ngi ko doon wottoo mu tontu noo def ak say dëkkandoo noo def ak jokku bokk sa bokk gi ak yeneen yi nga xam ne tudduma ko te yàlla sant na ko jàmm mu tontu ci ñu laaj ko mbooleem yi yàlla tere nu mu ci defan waaw ah, bokki kon euh, noonu la nit ki di ñëw géej gi pon yi pon bu ne ñu xool la leen yitteel ba keroog muy jeexal pon bi nag yor ak leer koo xam ni leeru ngëm yàllaam moom moo ko dimbali ba mu jàll ba loola fu mu xool lay yor ak càmmoñ ne ci digg leer gi ah, dara lu ko naqari du ko gis ndax lan moom nekkul woon àdduna ci bànneexu keseem waaye dafa nekkoon ci li yàlla santaane di ci góorgóorlu yokkul wàññikul muy yàlla gaat mu ngi ci doon góorgóorlu di ko moytu saa boroom nag daal di koy faye loolu léegi nag safaan ba ku ne safaan ba mu ne ci safaan ba nga xay yooyu yépp moom du ko am ndax daw ko bàyyi xel daw ko bàyyi xel adduna mii nii nga ko gisa nii mbon gi borom doole yi réew yi am doole yi eh, lañ jël menn réew jal ko ci menn réew gis nga réew yi réew yi am doole jël Israël jal ko ci jullit yi seen jëf ju ji ñu def Ismaïl jiite woon xamaas waaye ku bam génn ci ci ci tukki ñu fexe ba faat ko waaye jàpp naa ni Iran mii ma gis incha allahu na mu ko doon defee dina ko defee iraan di gisaguma muy tooñ de waaye li ku ko tooñ de dina fayu de ndax kële ganam la woon waaw adduna ni cel ni cel Sénégal fii ay jullit ñu ngi waxtaan xool yan réaction la ñuy def ndax dañuy sàkku ci état bi mu génne euh, ambassade u Israël dogoog moom ay relation te loolu mooy bëgg-bëggu jullit yi ëpp ci Sénégal mitit lu ko trop mel ni dañoo complexe kii di Israël ndax ki ci ginnaawam teel koy tànkam nga ni gone bu dee tooñ mag am na lu mu yaakaar am na lu mu yaakaar ki kon euh, waaye yow mal xiyaam de ñi nga xam ne ñooy yéefar yi seen lëndëm gu tar googu kuy bañ a bokk ci lëndëm googu euh, ngalawaay buy lëkkaloog ñoom ci intérêt yoo yaakaar ci ñoom ba sa diine xajam sa ngëm yàlla tilim ku ko def dinga ko réccu weddi lu la neex waaye bàmmeel la nga lay xaar siraat a nga lay xaar rek sawara mi ngi lay xaar rek bokk na ci continent yi jëkk jëkk jëkk tàbbi sawara mooy mooy mooykat yàlla yi yéefar yi ci lëndëm gu tar googu nga xam ni malaayka yi liggéey ci biir sawara lañuy ñuy yàkkamti ñooñu ñu yurub euh, ci siraat rek ndax lan ndax li ñu indaale ñi dong lañ doon xaar te ñoom dañ leen bind bàyyi leen sawara ñu nekk fonctionnaire yi liggéey foofu wala ayaasu billah nan yàlla musal ci ñoom su ko defee bu ñu nee yurub gaa yi ni leen tawit xool fa gën a xóot ci jahannama ñu def leen fa te àjjana fa gën a xóot moo gën a metti ki sawara laa bëgg a wax àjjana nag fii gën a féete kaw foofu moo gën a neex fu gën a suufe fa gën a féete kaw moo ko daq sawara nag safaan bala moom fu gën a féete kaw ah moom mooy mooy gën a woyof mbugal waaye fu gën a suufe rek foofu mooy gën a metti waxtu woowu ñuy dugal naafeq yi ak yéefar yi ñuy rëccu ak a xuloo ci seen biir eh, unsuruna naqtabis min nuurikum waaye waaye yéen ñii yor leer gi gestu leen ndax nu niitu seen leer gi fanam si fii daw ikum ñu leen irjihu waraakum faltamisu nuura <laughs> dellu leen fa ngeen jóge woon def li tax ngeen am leer bu ngeen ñëwee am leer te loolu wees na wees na gis nga ko inal munafiqina yuxaadicuuna allah wa huwa xaadicuhum ah naafiq yi yàlla nee na ñu ngi ñu ngi dañuy saboote di yejji yàlla hay wallahi yàlla moom moo leen di yejji moos ndax lan innahum kaanoo fi dunya isa laqul sina amano xaalu amana wa atharu lahum al imaana bi alsinatihim wa taqadu al kufra bi xulubihim ndax lan ñoom kat dañuy nekkoon ci àdduna bu ñu dajee ñi gëm yàlla ñi leen waawaw nun day gëm nañ yàlla loolu yéen a bokk waaye di fësal ngëm yàlla ci seen làmmiñ waaye lañ fas ci seen xol yi yàlla xam na ne ak kéefar la loolu moo doon naa naafeq ba léegi nag mi ngi am de te yàlla mi ngi jëf leen teeg jaam yi ci liñ fas ci seen xol waaw kon nañ bàyyi jikko yooyu bokk ci ab jurit yor jikko naa fekk yor ñaari kanam léeg-léeg mu ñëw wax loo xam ne li muy wax bokkul ak lim nar ak lim fas ni muy wax moom melul noonu mbokk dañoo bëgg ni ngay waxee noonu ngay dunde ni ngay dunde noonu noon waxee mbokk yi kon ah, nañ yàlla musal ci irji'u tamit faltamisu nuuran gis nga ko eh, wax nañ ni buñ leen yaa ah, eh, dellu leen ngeen dëpp wutik leer ñu daal di wëlbatiku di jàpp ni ñii kat bu ñu génn ko war a gis ak leer ah faya joon waraahum fayar fa ulahum eh, sara daabun fayasunuuna anna fi saraabi nuuran ñu seen li ñuy wax ay njono nga xam ne bu ndox ci naaj wu tàng seen lu mel ni ñu naan naaj wi day tëgal doom ji lu mel ni mu ndox nga gaaw waaxu jëm fa ndekete eh, tàngooru naaj wi mooy mel-mel ci sa kanam ndax te leer ga boo ko amul doo am fooy jaar ba mën a jéggi siraat loolu nag bunti àjjana yi bunti jahanama bunti saware daal di ubbeeku nag su ko defee ñi gëm yàlla daal di gis naa fekk di rot di rot ci biir sawara rek ñoom nag ñu naa leen busraakum busraakumul yawma jannaatun tajri min tahtiha al anhaar waay waay waay yéen ñi gëm yàlla bëgg leen de tey day àjjanaa ngi nii àjjana ju am am ay piscine ay dexam gis ah li a ngi nii mooy mbugal mi nga xam ni moom lañ doon wax naa feq yi ak nii mooy yàlla waaye ñu ni ak dee ñoom seen yoon nekku ci tey nag mi ngi nii gis nga ko bokk yi na yàlla eh, eh, umpal lii di sawar ak lu ko jege waaye àjjana nii mu mel ak ñu ko yàlla liggéeye eh, yërmandeem jooju nga xam ne xam nga ni lii yàlla laa bëgg ku mu fi dugal da laa bëgg rek waaye defoo yow lu ko jar ci àdduna ndax li nga def lépp yàllaa la jox la cër yi nga ko defee bu yàlla la ko jox bu dee xam ko jox bu mbooloo barke bu dee pal lépp yàllaa la ko def yàlla nag daal daal la cee fay àjjana kon yàlla yàlla moo la saweer kon bu jamono àggee fii munoo wax ba dugg ci bopp ndaw ñi